dama jug di sant kii maye. lu mu jënd xàmmee bi sama xaalis la nga ko ko ñeme ah, ma a sama kër. dama jug di sant kii maye. موي ربنا بور بيتو دو سلام amaan xam nga naa xam ne yow magum jëmm nga na yenn yoo xam ne baaxul yow yaay kilifa si kër gi yow mooy loolu da ngaa a ñàkk jom di nga yàlla da lay rëbb de yow heure nga naan ay dafa naan non da eh, moom li ngeen def moom wax dëgg yàlla lu baax. li bari na de. ah déet yow. yow ku bëggee ko a mais nice nice. maa bàyyi faa waaw ah, ngi ci maa ngi ci. salaam te mooy bi tuddu di buur yàlla mi doon salaam. خير خلقه صلاة السلام دكان صلاة دكان صلاة جخدنجي يا من عليه السلام كوكم يا لتم سنجبي أم صلاة تكون يا لبور بيت رمدي صلاة يا من مور